nakay tey la famille c'est ça mhm. jaxaay jaxaay un wala jaxaay deux wala jaxaay jaxaay un ba dix-neuf fi laa dëkk fi laa jaxaay daal A ba Z A ba Z mhm. avant

modeste loolu am solo euh, déjà benn instant damay ñëw kon ci mbër mi euh, mbër da nga nekk jaxaay ah. école de lutte Boy Seye n'est-ce pas nekk fa ak ñoom euh, Boy Seye 2 ay ñoom Mama Lamine ay ñoom Sibor yaa ngi may dégg ay ñoom Hamza fa la nekk n'est-ce pas ak sama grand frère yor leen ñu naan ko Baara moom mooy seen entraîneur principal nga nekk école de lutte Boy bi ngay bëri sa premier combat dans l'arène école de lutte Boy la la fekk ça veut dire ne bi nga ñëwee Dakar écurie bi nga njëkk a affilié licence bi nga njëkk a yor ba tey ji ma wax yow école Boy moo fa nekk te moo koy mos a doon. loolu nga jàpp loolu nga fas ma la gën a di nuyu baara suñu la suñu lépp la. Hmm. moo sama kosu naat. Hmm. moom ñaar la hmm. ko fa ñëw toog. te man dafa bëgg làmb. baara def na loolu ci ci man dama koy xalaat. lu far sama bopp di ñu luy toog ñu koy ñaan toog bu mu fekk suñu njëriñ ñu <laughs> fekk ay millions bokk si eh, vieux man Baara ba muy bëre ci ma waxoon du lekk ay million ci làmb mm-hmm. ma ne la déedéet parce que kooku bu daan bëre li mu daan def ci làmb dafa garaaw mais li mu daan mobiliser kenn xamul ni mu toll man dama fekkee li ma lay wax ni duñ ma nettali man fekkee ma ko de mais Baara rek làmb la tu as tout compris fekkee ma tu as tout compris mais Baara mm-hmm. ku nekk nit mm-hmm. mu kustu la wax la léegi-léegi xam na Baara làmb la

ci lañ daan dugal mbapat yi yaa ngi fa mënta teg da ko daan jël boobu yaa ngi jàng boobu fas yéene un leader professionnel yaa ngi non boobu xam nga soo nee ak lamb Aziz maa koy ñëw Aziz nek nekk entraînement di fant lamb soo soo demee sa morom tamit di nga di nga di nga gis fee rek nga fay sonal sa bopp li nga gis fee mu ngay tari def gis ay la kële bi moom def. xam nga tamit. boobu non da nga daan toog di xool muy muy bëre kële bu mu def nga gravé ko sa maan boo demee tari ko ci booy. semelle culturelle yi lu ñu teg nga jël ko. Mhm. Mhm. Euh, beneen instant da nga ne da nga doonu bëri ci kan. Sagoune Faye. Sagoune Faye mooy kan ak xam na fum fu fu mu nekkoon. Saalum Saalum. ban dëkk. Lambaay Saalum. Lambaay Saalum. waaw jógee siin toj siin dem sa lan la ci yow sa lan la. da cagun fay. kooku war nañ ko na ba oh. ah Yékini xam na ko. dégg sa ci nga kon est-ce que xam nga ne mission bi kon yomb ci yow. parce que boo ne sax boo ne kooku bëri na ba bàyyi bëri kenn mësu koo daan yow nga ñëw tey dugg ci arène bi dafa mel ni kooku dafa commencé woon benn mission nga ñëw pour yeggali mission. Hmm, sama ñaari côté bi sama ñaari côté bi. séeréer bu mënul bëri tooñ. vieux sama côté yaay sama côté papa yi da nga doon quoi. da nga doon bëree ci sa côté yaay ak sa ah, côté papa. sa côté yaay kan ma doon bëri. kii sa côté papa aussi da nga ko doon. kon yow boo cuunee ci bëree tooñ kon yow boo mënul bëri tooñ Euh, vieux y a quelques années nga ñëw dugg ci ah. n'est-ce pas a eu ce premier combat dans l'arène da nga à la dans danaan ah, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mais ce euh, premier combat yaa contre un euh, ambulant Un ambulant bu bu bu yi yi ah, combat bi

di la tànk bi ma xam ne su ma songee dara. Ah. ndax ndax ndax man loolu laa bëggoon mu am lu mu cëf si man rek. ak lamb ji jeex. Ah, lu tax yow songoo ko. non non mën ma ko song ndax ndax taxawut. waaw ça c'est clair man bu taxawul mënoo koo song. Ah, songee. boo songee mu fente rek ci air bi ngay. te lamb ji nee trois abis sax gars yi dem bala. ah te boo daanoo benn boo daanee dix jël boo daanoo benn yoon mu mel ni mosoo daan. waaw gis nga critique yi jóge fu ne non maa ngi ci seen biir rakk man xam naa nu mu demee. léegi nangu woo jël risque. après finalement coach coach bi ne ko. dama sàcc dégg ko soom naan ko jël tànk bi. Hmm. ma xam ne su ko defee lamb ji jeex na. finalement su taxee rek lamb ji jeex na. Hmm. jël ma palaay ko dafa sëgg di jël sa tànk. ma palaay ko nga daw moom ak placage. non fekk ko dara taw ma tax laa ko palaake ma doon nga xam naa boobu vidé naa ko. ndax man lu ah, non non combat bi yàgg na bëri ngeen plus de 10 minutes. waaw ah. 15 minutes nga vidé mu jeex ah. hmm. ne ko jël ah yaa ko seexal tànk bi ah, ah yaa tey seexal ko tànk bi pour mu ñëw ut si ko mu sëgg mu sëgg rek xelam nekk te mën na cobet fekk ko mu wàcc eh. nga signé sa première victoire dans l'arène ah. digganteeg sa euh, sa digganteeg booy ambulant ku bëri woon grand combat bi fëgal kii fëgal kii Jokal. Jokal la ci nga bëree sa premier combat dans l'arène. Euh, Jokal di ko nuyu aussi champion Kër Massar mbooloo bi. Mm-hmm. sa deuxième combat ñu ne la kaay moo cek cek. kooku aussi jiitoo la ci làmb lu bari parce que moom tamit su ma jumul 2012 la bëree premier combat am dans l'arène. man nag yàlla dafa def mosoo bëre coono te mosoo bëre koo xam ne ñoo toll si làmb.

maa ngi dégg coach am naan ko dawloo ko dafa diis. coach bi waaw. coach écurie Ramdan. waaw naan ko dawloo ko dafa diis. dafa diis te man xamul ne man sama bëre. Mhm. damay déglu sa coach. da ngay étudier mbër mi di bàyyi xel star man non non man man yow comme ça mbër mi man sama coach. ma mhm. ko déglu sa coach laay déglu lu ma lay appliqué yow. lu mu la def loolu lu mu la digal pour nga def nga xam fan ngay jaar pour ah, loolu intelligence la. intelligence man sama coach ko déglu sa coach la ne jaaral fii rek. yow nga xam fan ngay jaar pour contrer mbër mi ba daan ko. waaw léegi. léegi ñu tudd ko sum ne ko dox doxaloo ko. Hmm. mu xam ne man dini fanaan rek laa fa defal. dini fanaan rek laa fa defal. yenn nekk xëy nga fa. ku nu mbër bi takk ngemb. laaj ko ma xam entraînement nga ma xamee. ma xam ne bon arène nationale mën na ma jaaxal. foo jaar foo jaar moo dox si koom. waaw laa dox si léegi nag moo dox si koom nag soo ëttal ko muy arrière mu arrière nag bu mu xaw a dugg saako yi ma teg ma tànk ma foog ne jeex na quoi. waaw mu sànni ko mu sànni mhm. sànnee coup perdu. sànni ci air bi. waaw non coup coup perdu laa jël foofu. waaw mu mhm. ma ma xaw a kawate. Mhm. ah coup bi dal na. coup bi dal na tël coup perdu gisuma ko. ok ma xaw a kawate. mu foog ne jeexal naa. coup bi dafa dal mu foog ne instant bi da nga kaaw debout. coup bi daa dal daa dal bu ma def deux léegi après. c'est la mhm. mu daw si. Mhm. foo mu ñëw pour finir action. waaw ah, bu ñu ñëwee fekk si ginnaaw ba caxawal ba dugg muy ñëw di daw di la ut si. boobu caxawal dugg nga ko roof caxabal. jaaxal na bu mais vieux comment ça se yow nga jël un coup. coup bi dal kañ. ba waaj ne kii il légui instant bi muy daw pour ñeu finir action yow fofu nan nga mëna mais lamb la ah, lamb mayal la du doon du len kay kay technique. technique il faut être fort techniquement. nit bi soy nelaw sax ni su la ne xaar war nga mëna xam kala war nga mëna am bel kala <laughs> ak am wóor fofu nga ko jaar. rof ko caxabal wiru ko mu wacc dama yobu sax.

demi flexion nag mu def nag moo ko nax waaw bi nga defee demi flexion japp na ne waa ji dara desatu fi ndax dama def dama def demi flexion nag ba sama sifas yëpp yuuxu ñu yuuxee tamit noonu la ñu yuuxawaatee parce que action réaction action sur action nga daan kii di Mor Cak Cak signé sa deuxième victoire dans l'arène euh par la suite gars yi gën la bàyyi xel mhm. man bok man bok c'est premier combat man bu la gisé ak Baara mhm. ci laa la bàyyi xel mhm. mais bi nga signé deux victoires jëm si dikk ne ah waa ji fan la jëm nga signé deux victoires ñu ne am Kogna 2 instant boobu nag on se dise la vérité Kogna 2 moo la ëpp coow ci làmb bu ñu waxante dëgg rek. mais làmb la xam nga làmb amul ëpp coow yi man Kogna 2 nekkul man ak moom. du yàgg moom combat bi du woon yàgg moom. non non sa adversaire ciblé kan la woon. kii euh, de Falaye. Fils de Falaye Fils de Falaye nga waroon bëri. man nag Fils de Falaye nga waroon bëri. ok ba làmb ji des une semaine. Uh-huh. fils de Falaye man bu wala bu wala bu. fils de Falaye bu écrit. bu Balde ok. di insaan mu mën tudd kan sama kii ménagère ma ko nuyu Fatou Mata mhm. ah Fallou Ndiaye de na kii fils de Falaye day daa andi kii am mu tudd mu yaaram ne daa feebar. Mhm. waaw mhm. def man sama ah sama ñëpp jàpp si ñëpp bàyyi li def. ma insan mu xam nga tuuse mhm. léegi nag après dina Massa Ndiaye am na problème léegi o Fallou Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye ne ko nañ ko jox Koña ndax Koña nag dugg na. Koña dégg. Koña dégg. dugg na kii la Dakar. bi taxaw. Mhm. Euh, moom moo nekkoon favori. Koña dégg. Mhm. d'après ñi ko xam gars ni ko xam.